alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala ashrafi alxalq sayyidi alkawnayni walsaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokk julli di gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci sallallahu alayhi wa sallam di gërëm bu baax bokk yi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay fu ñu mën a toll ci seen émission Shukran bi ñu leen jagleel ci biir weeru kor wi bis bu jot ñu waxtaan ak yéen ci benn pàcc ci xam-xam di ñaan yàlla mu may ñu nopp yuñ ko déggee buñ ko déggee bu noppit mu may ñu cawarte buñ ko mën a jëfandikoo euh, mbokk yi tey nag dañuy dikk ak seen yéen ci ak yéen ci suñu émission bi ci wàllu njibar euh, mu doon loo xam ne lislaam da ko tere mu xaram tifaaqan nag tifaaqan parce que xam-xamu xaybu yàlla sunu borom bi képp moo ko jagoo waaye nag lu dul ci jaamam ñu néew ñoo ko xam ndax moo ne woon wa indahu mafatihul xaybi laa yaalamuha illa huwa man yàlla seen borom bi man képp ma téye caabi kumpa joxuma ko kenn lu dul jaamam bu mu ci baaxee rek mu mën ko xam euh, bu ñu seetloo suñu jamono ji tey nag ni muy doxee dafa mel ni ki nit ñi seen activité yëpp wala seen itte yëpp fu ñu ko gën a jëmale bokk na ci njabar mu doon système wut xaalis boo xam ni euh, espèce u arnaque lañ ko mën a tudde te yàlla jàngaloon ñu ci alquran ne wala taakulu na baynakum bil baatili bu leen lekkante seen alal yi ci seen biir ci ay caaxaan te sixr mooy njabar dafa bokk ci xeetu caaxaan yoo xam ne du doon dëgg mukk Euh, boo gisee bi yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ñu dàq xeetu shayatin yi ci asamaan yëpp ñu dàq leen ñu wàcc moom nga gis ñu di leen sadd ay jum ñuy daw euh, ngir juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que booba ñoom amoon nañu pouvoir u mën a yéeg ci kaw léeg-léeg ñu for fa ay xabaar bu ñu egsee di ko jox pettaawkat yi ñu di ci fenn euh, mbokk yi njibar nag am na ñu bari ñu wax ne mi ngi tàmbalee ci Haaruta ak Maaruta nettali woon nañ ko fi ci suñu benn jataay mooy ñaari malaayika yooyu nga xam ne ñoom ñoo wàcce woon ci kaw di leen yàlla roofee li muy roof nit yàlla dogal ca la ñuy jalgatee euh, mbokk yi ñoom nag boo demee ci banu Israila am na ñu bari ñoo xam ne dañuy wax ne boo demee ca xur woowa ñuy wax baabi la mën nga faa séq ak ñoom baya boo xam ne da ngay jaayante ak ñoom ñu génn la ci li nga nekk dugal la ci beneen secte waaye ñoom boo agsee comme ñoom xam nañu pouvoiru yàlla ni mu toll danañu la wax ne bul weddi yàlla wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama nahnu fitnatun ñun ay fitna lañu li ñu xam soo ko wax soo ko xamee da ngay dugg ci giraawaali xam bi mooy lan mooy lu tàqali diggante jëkkër ak jabar xam-xam bi mooy lan mooy lu féewale diggante ndey ak doom xam-xam bi mooy lan mooy lu fexe ba nax nit mën a lekk alalam dem sa yoon te mbokk yi jabar dafa yaatu jabar dafa yaatu moo tax Euh, jëlee nañ ci Ali ibnu Abi Talib radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii xetu aljanna du leen xeeñ du ñu fa dugg ñu ne ko ñett ñooñu ñan la mu ne koo xam ne danga dog ak bokk kooku du dem aljanna mukk du gis xet ga koo xam ne da nga dem ci njabar dëggal la mu la wax ndax yonent bi waxoon na ci addis ne man ata kaahinan fa saddaqahu faqad kafara bima nuzila ala muhammadin wal iyaazu billahi euh, yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne woon na Euh, ku dem ci njabarkat mu tani pettaaw wax la nga gëm mu ne weddi nga li yàlla wàcce woon ci man yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla na ci yàlla musal ñu laaj ko ki ko ñetteel mooy kan mu ne koo xam ne dafa dappati ko naan sàngara mbokk yi li weeru koor di foor foor sax ñetti ñii ma lim ni kenn bokku ci aqun li walidayhi wa mudminul xamri wa ailun mustakbir mbokk yi nañu wattandiko yooyu njabar nag daf di lu doy waar loo xam ne xeet yiñ koy defee dafa yéeme euh, bokk na ci mooy fexe ba nax nit ki mën a jël alalam mbaa nga fëkk am xelam tàqale ko ak boppam ba mbokk yi ndeysaan du mën a xam sax li muy def te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci yim doon mooy tundikuloo jullit parce que jullit du def loolu te léegi réew mi boo ko seetloo da gis koo xam ne sax day dugg ci vie privée jàmbur dem ba mel ni fan wu kooka di dund yàlla daf ko teg ci loxoom te yàlla nañ ci yàlla musal te dañuy wax ne na kenn gën te dëgër fit ki fi yàlla jéggi ñëpp am lu mu la dee ci guddi gi nga xëy wi le ko kenn gënu ko dëgër fit waaye dañuy wax ne tamit kenn gën te dëgër fit ki yàlla wonul dara mu xëy am fitu taxaw ne yàlla wan na ma nàngam bii nañu ko wattandiku parce que yooyu dafay dugg ci xeetu shirk te yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluka yàlla yàlla newoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo bokkaalee man yàlla danaa sippi li nga defoon lépp sànni ko nële dootuma ko xool yàlla nag bi muy wax loolu yonent bi du woon yonent bi totalement moo waral wax ja waaye ñun jullit ñi nga xam ne ñoo war a ñëw ñoo ñoo moom wax jooju parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp nangu nañ ne maxsuum la moom infaillible la du def bàkkaar mukk yàlla musal na ko ci loolu parce que seytaane du ko déraper addina du ko déraper te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy koo xam ne lum soxla woon yàlla defal ko ko kon koo ko soxlawul woon jabar euh, da ngay seetlu ne sax moom sallallahu alayhi wa sallam ci boppam dem nañ sax ba jekk ko ci njabar moo tax yàlla jox ko sóoratul falaq jox ko sóoratul naasi ñu def ko médicament mboolem kuy jullit euh, mbokk yi falaq ak naasi njariñ yi ci nekk kenn xamul sax nu mu toll yàlla mi ñu ko jox rek moo ko xam parce que boo ko seetee fallaxi juróom benn aaya la naasi juróomi aaya la soo leen boole moo lay jox onze di huwa ci la médicament jullit ñëpp nekk euh, nga seetlu ne sax yàlla jox na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma samiu dikra wa yaquluuna innahu la majnunun wa ma huwa illa dikrun lil alamina li tax yàlla jox ko ko bokk na ca muslaay ca la bokkoon tayit bi ci des mooy yàlla waxoon na ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa ma ballaghta risala wallahu yaasimuka min annaas yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow sama ndaw li jottalil li ma la jox ci jaam ñi soo ko deful defuloo li ma la sant su fekkente ne dafa am looy ñuggu ñuggal di ko ragal mbaa nga di ko sóoraale man yàlla maa la fegal nit ñi ba kenn mun laa lor mbokk yi nañu wattandiku njabar yàgg na fi nag yàgg na fi ndax Égypte euh, boo fa demee ci seen musée yi danga nga fay fekk musée yoo xam ne wàllu njabar loo ci bëgguñu jàngal la ko parce que loolu mooy seen domaine kon njabar yàgg na fi moo fi jiitu sallallahu alayhi wa sallam euh, nga seet ne ci banu Israila depuis ca Haaruta Maaruta ci lañu ñu commencé woon loola di wër di yàq di dem ah ba yàlla dogal ci ñoom la mu dogal wax nañu ne sax ñoom seen mbugal mooy dañu leen a wékk ca baabil lépp sawara wu taal ci àddina saxaar sama nga jëm ci seen bët yi yàlla roof leen mar wu tar roof leen tàngoor wu metti ndox mu sedd di jaar ci seen suuf te mënuñoo naan mbugal moomu la leen yàlla defal la tax nag ñu defal leen ko mooy ñoom ñoo préféré yàlla mbugal leen ci àddina parce que xam nañ ne mbugalam àllaaxira loolu luy sax la kon mbokk yi lii mooy seen émission boo xam ne dañ leen ko indil tey ci njabar nañu wattandiku njabar lu ñu man nañu wattandiku njabar lu ñu man mbokk yi nit lu muy am lu ne yàlla programme na ko ci biiru yaayam ndax waxoon na ko ci alquran ne in kuntum fii raybin min al baas fa inna xalaqnaakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudqatin muxallaqatin wa gayri muxallaqa nu bay linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nashaa'u illa ajalin musamman summa nuxrijukum tiflan mbokk yi yàlla jaar naa nit ci paravent yoo xam ne kenn xamul nu mu toll yàlla ngi toppe doomu aadama bi mu nekk grain ñu yóbbu ko ca tool ya bay ko mu ñoree foofu ñu yenu ko fa indi ko ci kër gi soq ko wal ko bàyyi lekk ko yàlla def ko toqante lu man yu dugal ko ci yaay mu téye ko fa ay fan yàlla di ko soppar ñi ba mu soob ko mu koy tëgg ci ab xale génne ko bi ngay juddu am ñoo desandoog ci hôpital bi nga génnee hôpital ñëw ci kër gi am na koo xam ne ngénte ko bi nga bi ñu la ngéntee bi nga amee majeur am na koo xam ne jotu la majeur nga takk soxna am ku takkul soxna nga am doom yàlla dogal am ku amul doom épreuve yooyu yëpp yàlla jaar ceeg yow kon su la mën naa laa téyal sama bopp war nga koo gëm mbokk yàlla am na fayda ju day ni wul kenn ak moromam kenn ku nekk moo la téyel boppam wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin mbokk yàlla nee na lépp loo xam ne yaa ngi ami tànk di waaxuy dem di dikk man yàlla sa borom bi subhaanahu wa taala ma yor sa wërsëg di sottandiku say mbir foo mën a jaar man la loo lekk man la loo am man la mbokk yi nañu bàyyi yàlla xel te wattandiku jabar te xam ne bis pénc dana am yow yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran wa maa amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baxida yàlla newoon na ci alquran seen jëf yi bu rafetee yowmal qiyaam bu ngeen ñëwee dañ koy jal mu doon jëmm ju rafet ngeen saafonteeg moom xam ne yéen ko liggéey waaye bu jëf ji bonee da ngay ngéejoo mu sore woon la comme penkook sowu kon yàlla nañu defal dégg ak topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu